Euh, xam nga Sénégal am na moment boo xam ne opposition pouvoir le rapport de force n'était pas amul woon benn gab bi euh, gis nga moment boo xam ne pour le pouvoir a même nërmeelu na tuuti est-ce que on pouvait parler de de d'une bu amul doole am na moment y y a votre portable am na moment boo xam ne le rapport de force xawoon na équilibré tuuti yow ñu lay dégg lu bari mosuloo ànd ci coup d'état quel que soit kii bi ñu ko doon connotation bu ñu koy bëgg a jox mosoo ci ànd boo toggee nga dégg un homme politique de la trempe et j'en reviens c'est-à-dire pourquoi vous ne signez pas des actes de condamnation des communiqués pour rappeler cet homme politique là alors un homme politique qui dit xale yi am entraîné wu nañ am nañ doole nañu dox jubal ci pale bi damay jóge Casamance ma dox ñu def euh, la la la caravane de la liberté non man ma je parle xam nga du ñëppay lire sa rapport yi je parle des des des des faits d'actualité le lendemain quand waroon nga ko rappeler à l'ordre nommément nga condamner ces propos là euh, gis nga euh, à plusieurs reprises à plusieurs reprises dama koy répéter fii ci ay interview yoo xam ne def naa ko xam nga damay liggéey te damay damay travailler sur l'histoire histoire du printemps arabe fii la ñu fekk les conséquences des printemps arabes dama ko citer benn par benn ni leen nañ moytu insurrection d'autant plus que man damay liggéey sur le Sahel mais c'est des condamnations non non defal ndànk rek non defal déglu xam nga soo ma soo ma soo ma soo ma interviewé da nga may déglu parce que man damay liggéey de façon scientifique sur la question de l'insurrection xoolal mu ngi fii même Fofana bi mu ñëwee affaire boobu la jëw ni ah Alioune yaa ngi doog a reconnaître ma ne ko non yow doo may déglu ma ne ko doo may déglu dama ko dama cité jël leen insurrection bu Égypte ban résultat la am jël leen insurrection bu Tunisie ban résultat la am jël leen insurrection bu Soudan ban résultat la am jël leen insurrection bu Burkina Faso ban résultat la am Libye sax kaaw la andi 2011 donc yooyu yëpp dama ko dama koy liggéey dans la sous donc ci laa ne moytu leen insurrection fii bind naa ko ba nga xam ne sax ñoom dañ ma ne parce que Alioune Tine dañ ma ne Alioune Tine <laughs> moom moom ci boppam la la la la la wax problème mu insurrection ba ñu ma ne ma Alioune ñu ne ma Alioune Tine yaa ko bind ma ne si maa ko bind maa ko bind loolu rek laa ko la. moytu leen insurrection. du moytu dafa dafa moytu leen insurrection dafa wute ak. appel yi appel yi ngay def c'est antidémocratique il faut cesser cela le pouvoir se conquiert démocratiquement. lii ba nga fii ma bind. moo tax ma andil la ko. waaw mais man je prends je parle de. dama lay expliquer ne ni problème def na ay position publique yoo xam ne mën nga ko gis. ci ay télévision yoo xam ne ñoo ma interviewé ma wax ko te dama ko wax sur la base du analyse de la vulnérabilité de la sous-région parce que toujours ma wax ko dama koy dama koy wax di ko répéter dama ne attention contexte bi ñu nekk muy opposition muy pouvoir dañu war a déggoo Sénégal dañu war a am réconciliation am doole parce que dañu am gaz dañu am pétrole te gaz ak pétrole foo ko am parce que ay menaces pour la sécurité ci état yi waaw oui ñoom <laughs> day indi day indi guerre ñi ko soxla ci biti ñoom ñooñu ëpp ñooñu ñoom ñooñu ko gën a ñi ci ne ci biti ñooñu ko gën a soxla ñu ne ci biir te mu autant mu nekk ñi nga xam ne c'est les multinationales mun nañ la indil guerre que mu nekk aussi les djihadistes parce que ñoom ci seen bopp dañuy exploiter les ressources léegi muy or muy leneen man damay travailler dans la sous-région def leen attention juboo leen donc amul benn post boo xam ne dinaa ko def ba mu jeex te du ma ne juboo leen waxtaan leen dialogué leen donc c'est sur la base d'un travail scientifique et d'une bonne mais, connaissance cest à dama xam sous région bi bu baax dama euh, ci dama ci dama ci tukki bu baax